ñun waa Tëngéej Tëngéej laa dëkk ci mbedd mi laa nekk di jaayee ñi ñi muy dégager ci mbedd mi yëpp genn wala gi ñoo yore seen kër yore seen location di si dund balaa dëkk di rafet nag ñuy wax na ay dëkk bu rafet dëkk bu rafet nay fekke nga nga am foo yóbbu nit ñi est-ce que dégg nga wax ju baax Macky Sall na xoolaat boppam li mu def ni teer bu rafet ni patron yi rek ñoo ko moom ñun moomuñu ko ñun miskini 200 francs laay def paas Tëngéej ñëw fii balaa muy ñibbi circulation yu dul jeex te lu tax agression yu dul jeex ñoo ngi nekk ci dëkk bi rey bi ñuy rey ni ñi ci ñàkk fayda ci portable 100 francs lu tax ñu ko euh, régler ci rey li ñuy may ci ci portable bu ñu waxee ñu ne xaw ma viol bi dañ si jógee lan lay ragal wax dëkk gi góor jigéen bi buñ ko waxee nañ jàpp jor rey góor jigéen yi loolu réglé wu yàlla jigéen ak góor la wax masala ay commencé guñu xalaatu guñ ko def na wax ne carrément nu Robert Mugabe waxo kenn mosu fi gis mbaam ak mbaam di di warante te ay mal ay mala lañ góor ak jigéen la yàlla wax kuñ fi gis ñu rey la loolu la waroon def. li ñu yaakaaroon ci moom gisuñu si dara waaw parce que premier mandat mu ngi doon commencé di liggéey mais deuxième mandat bi mu jotee nii dafa saboté carrément waaw boo xoolee terre bi dund gi lépp a metti daal fi mu toll guddi ñu toll nii lépp a metti xam nga mais nag ñuy wax ne lu mu metti metti nañ xam ne sénégalais yi ñoo ko faloon xam nga nañ bàyyi ba après bu élection jotee ñu xool keneen ku ñu doy ñu tekk fi. kenn bañ indi benn bir wi quoi ñu xam ne Sénégal jàmm rek moo fi xaj. moom deux mandats rek la war a am moom doo am troisième mandat deux deux mandats lay am léegi deux mandats bu jeexee nañu abal parce que Sénégal dafa laaj changement quoi dafa laaj changement il faut ñu indi jeune bu ambitieux mu doxal affaire yi carrément mu mën a doxal parce que moom na atam yim yim jate gaaw mat rek xam nga mu may ñu keneen ñëw toog mhm. waaw sonn nañ torop vraiment. man un an Macky Sall yi ya moom sentiru ma ko quoi wax dëgg fa yàlla quoi waaw parce que man politiciens yi moom man ñoom seen wax ñoom ñëpp a yam ñoom seen waxu démb ak seen waxu tey moom du bokk quoi Macky Sall moom kontaanu ma ci moom quoi wax dëgg fa yàlla tama ko sànnil carte nag quoi mais d'après ni ma gisee nii xam nga ak euh, assemblée nationale député yi xam nga dañuy nekkee foofu dafa mel ni ñoom daal problème askan bi ñoom intéressé wu leen quoi waaw ñoom seen problème bopp moo leen moo leen intéressé quoi. waaw man moom loolu laa gis quoi waaw mais nguuru Macky Sall moom gisuma ci sama bopp quoi. dama koy wax mu mu liggéey rek jéem a xoolaat moom entourage am waaw jéem a xoolaat entourage am quoi waaw parce que moom entourage am moom certes moom xam naa moom am na yéene pour defar Sénégal mais entourage am moom non non non non ni ñuy comporté woo moom non baaxul quoi man moom waaw loolu laa constaté quoi. diwlin yokku na ceeb waaw soble bi xam nga lépp man moom. noonu laa ko déggee waaw mais Macky moom waxuñu woon loolu waaw moom bi mu toogee moom avant muy toog dafa waxoon ne bu toogee xam nga dina wàññi dina wàññi diwliñ xam nga ak fan yi ñuy wax courant bi tamit dafa yokk loolu day na waar quoi waaw te mu te mu bàyyi te mu bàyyi Guy Marius Sagna tamit bi mu téye quoi na bàyyi Guy mari saaña waaw kooku moom da doon xeex benn cause xam nga ñëw na ba pare kooku amul problème na ko bàyyi xam nga moo gën ko parce que ñi mu jàppandool ñëpp bàyyi na leen mom kese mu téye ko dégg naa daf ko yóbbu sax isolation